asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nii baax di leen ziar te nag caméra de surveillance lañ bëgg a indi boo xam ni bu am solo la da yor ñaari téléphone benn bi sa kër nga koy bàyyi bi ngay bàyyi sa kër nag moom ngay téye nii moom ngay njëkk a configuré soo ko nga dem ci Play bi nga bind fa benn application bu ñuy seet fa benn application bii nii voilà bii boo ko bindee ci base de recherche bi mu indil boo recherché mu indil la ko comme télécharge naa ko pare. Eh, boo ko téléchargé ba pare nga def ouvrir eh, boo defee ouvrir mu indil benn interface bu am solo xaar ma ouvrir ko eh, boo ko ubbee lii la lay génneel defal lii tableau bi nga def autorisé boo defee autorisé mu defaatal la autorisé tout nga def autorisé mu defaatal la autorisé mu defaat autorisé nga autorisé mu génne la lii interface wu kii bi la lay génneel euh, ni muy mel léegi boo duggee nii lay mel wante da ngay dem ci sa gauche table bi waaw fële sa gauche ngay cliquer bo cliquer mu génne daal la li ñëw fii ci sa droite nga cliquer ci boo cliquer nag euh, interface baa ngi nii léegi lii instant bi li ngay gis nii euh, mooy téléphone bu njëkk bi mi ngi tàmbalee caméra waaye. Euh, synchronisé gul ak euh, beneen application bi léegi da ngay bës généré boo ko bësee mu indi la code euh, QR bi léegi QR bi nag da ngay bàyyi fii nii nga demaat ci beneen téléphone téléphone bi ngay yor nga am application ba ci téléchargé moom tamit xaaral ñu dem won la ni koy téléchargé ak turu application bi léegi boo ñëwee da ngay dugg Play Store boo duggee Play Store euh, nga seet fa benn application boo xam ne moom it euh, bu Atom lañ koy tuddee gis nga ko Atom caméra maison euh, sécurité boo ko tapee ci barre recherche bi boo recherché dina feeñ comme man téléchargé ko par dama koy ouvrir boo ouvriree mu génne la autorisé. nga autorisé mu defaat la autorisé tout nga def mu defaat la autorisé nga autorisé léegi boo dikkee moom itam lii la lay génneel eh, waaye ay quelques réglages rek moo ci des bu la génnee lii da ngay défilé jëm ndeyjoor défilé jëm ndeyjoor voilà bu sesee rek boo cliqué ci kaw affaire bu xonq bu ndaw bi lii la lay génneel lii tableau bii nii. boo ko defee nga ñëw ci accepté ji accepté boo accepté mu génne la lii lii nag daf lay laaj code secret daf lay laaj euh, nga connecté wu ak sa compte Google benn compte Google boo connecté wu rek euh, danga koy tànnal mot de passe bu la soob mot de passe bu la neexee nga koy tànnal léegi comme am naa fi benn compte ma def nii euh, tànnal ko benn mot de bu ma neex mot de passe bi nag te mu indi ay difficulté parce que dama ko njëkkoon dugal te xamatuma lan la waaye naa ba keroog muy ñëw rek. ngeen baal ma ci loolu léegi euh, dugal naa benn mot de passe euh, ok naa day lank parce que woluwuma ni moom la quoi mais xaaral rek ñu essayé tuuti rek euh, bañ na xaar ma essayé waat beneen mot de passe maa ngi jégalu ma essayé beneen mot de passe wala ma changé kii bi adresse email bi changé naa ko dikkaat naa ci beneen mot de passe enregistré ah, loolu su fekkee yow la nag yow mi koy njëkk a def saa boo defee sa adresse email rek moo de passe boo ci teg rek mu accepté mu nangu comme dama enregistré woon déjà donc suma ma bëggee defaat beneen mot de passe day xaw a lànk euh, voilà léegi nag interface bi dëgg-dëgg mi ngi nii léegi bon bu la defalee lii tableau bu ci suuf nii moom du dara danga koy kii léegi dangay ñëw fii ci ci trait bu xonq bi trait bu orange bi booba bësee mu indil la mm, lii nii scanner bi fi ngay scanner léegi lan lay laaj ab téléphone ba nga njëkkoon yor amoon na benn code bu ca feeñoon benn QR bu ca feeñoon boobu la bëgg nga scanner ko fii gis nga léegi danga nga ko ciy tiimale pour nga mën a communiquer ñaari application yi boo ko scanner gis nga mi ngi scanner boo ko skanee ba mu pare léegi nag saye ñaari application yi Euh, communiqué nañ waaye da ngay euh, boo téléphone bi nga mujjee yor nii da ngay bës ci digg bi lii mel ni euh, signe vidéo buñ pause da ngay bës ci digg bi boo bësee ci digg bi mu indil la lii voilà léegi nag communiqué na ak téléphone bële communiqué na ak télé ak téléphone bële léegi téléphone bële fépp fu mu nekk di fa caméra rek fépp foo ko jublul rek lépp lu fay xew image bu yëpp yow da nga koy gis ci sa ci sa téléphone waaye nag euh, bul fàtte ne day am connexion téléphone bi ngay bàyyi ci kër gi day am connexion bi ngay yor day am connexion bu ko defee communication bi ci lay mën a amee quoi en même temps euh, saa bu ñaari téléphone yi xasee communiqué bruit bi son bépp son bu jegee foofu noonu da nga koy dégg euh, ku jege téléphone ba di nga mën a wax ak moom di nga mën a taal flash bi flash téléphone bi nga bàyyi ci kër gi di nga mën a nekk ci distance bu sore sore yi nga taal ko su fekkee li muy caméra dafa lëndëm di nga mën vidéo bi en en même temps comme mooy bouton bi ci digg bi nii di nga ci mën a enregistrer vidéo bi vidéo bi ngay caméra di nga ko mën a enregistrer ci bouton boobu noonu voilà léegi loo xam nga téléphone baa na le téléphone bële la la muy caméra moo nekk nii ci suuf nii waaw lee moo nekk nii ci su ci sama vidéo bi ci ci ron gi nii fii nii ci suuf moom moo fi nekk comme dama yor ñaari téléphone rek waaye mais su ma yoree ñetti téléphone lay gën leer mais comme ñaari téléphone laa yor nii rek lay mën a demee mais nga comprendre ni euh, téléphone bële feeñ na le bële may gis la le may gis la lee di feeñ ca caméraam ba fépp fu ma nekk rek tant que mi ngi am connexion man tamay am connexion fépp fu ma nekk rek euh, dama koy gis damay gis la fay xew lépp te eh, saa su ma waxee day ah, day dikk ci téléphone bi su ma ne eh yow bon looy def fii wala eh wol ma diw yooyu yëpp daal lépp lu ma wax daal day day dikk ci téléphone ba noonu képp ku jege téléphone bi da nga koy dégg en même temps su ma neexee ma taal flash bi su fekkee dafa lëndam comme ni ma la ko waxee léegi eh, su ma neexee ma enregistré bi may kii su ma neexee ma ko ak ak bu rouge bi ci digg bi nii nga xam ni affaire bu am solo la quoi tey distance bu sori la mën a jël mun na jël distance bu sori distance bu sori su ma neexee fii laa koy enregistré fii nii gis nga nii bu bësee rek mu enregistré wu vidéo bi la caméra ba la di jox su ko defee nga ko pour bañ koo perte gis nga ko gis nga ko la muy caméra lépp fi nii mi ngi nii ci suuf sama vidéo boo jógee ci suuf bon bouton ñetti boutons yu rouge ak ñaari boutons yi ci kaw la nga teg mooy caméra mooy la téléphone ba la di génne caméra bi di génne mais comme benn comme bon ci benn téléphone ci laa koy caméra wee day mel ni lu xaw a euh, jaxasoo waaye jàppal téléphone bële ma téye sama loxo ba bële booba la muy euh, caméra ba muy gis moom moo nekk nii ci sama euh, téléphone bii nii ah, boo ko seetloo bu baax a baax di nga ko gis nga ko gis am na solo trop am na solo lool lool lool lool te caméra boo xam ne si su fekkee ñaari téléphone yu baax nga yor caméra bu leer ngay am caméra bu leer nañ ngay am bu leer nañ waaw gis nga eh, léegi nag eh, boo téléphone bële saa bu fayee même moom eh, tamit am na lu ci xewale téléphone bële nga nga bàyyi ci kër gi moom nga nga nga génn ñàkkatee nekk ci. E, ci ci application bi du ci dara ba su la neexee nga génn complètement ba ba ba gis écran téléphone ba ba jàkkaarloog sa application téléphone yi loolu noonu du ci dara maanaam boo nekkee ci biir application bi boo ci nekkul lépp la yemale lépp fépp fu caméra bi dëppee moom day jël loolu lépp waaw mais nag yow moom euh, soo ko bëggee seetaan moom yow mi yor sa téléphone pour bëgg a surveiller sa kër faaw nga dugg ci téléphone bi faaw nga dugg yow moom ci application bi pour mën a xam le xew waaye bale moom du jar loolu quoi ah muy affaire bu am solo trop trop trop boo xam ne si euh, su fekkee intéressé na la euh, boo defee nii di nga di nga ko mën a am normalement mais da ngay def ndànk-ndànk rek comme ça nga mën a def ñaari configuration yëpp boo paree nga jël code QR bi nga scanné ko boo ko scanné rek eh, application dinañ synchroniser bu ko defee eh, di nga ci mën a li nga bëgg lépp ah, loolu moo nekkoon vidéo tey bi eh, di leen jaajëfal bu baax baax ci topp ngeen topp vidéo yi di la ñaan encore une fois nga abonné yow mi abonné gut asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.